waaw nee na borom daaru bi mu egg see njariñ di waxtaan ak na seen waxtaan yi njëkk ba nga xam ne laata muy woolu soxna Faati ngir yeewi waa kër gi boobu daanaka tisbaar jot na fekk waa kër gi jaaxle nañ lool mooy kër jigéen ñi ndax ndax commandant bi lool mooy commandant boobu ma wax bi ñu ñëwee ci guddi gi bañ wax ko ne dañ ko bëgg a yóbbu tubaab ba mu nangu dafa demaat këram indi ñaar fukki garde ak ñeent joxe leen ci otom bi mu ñëwee waral leen kër gu mag diggante juróom fukki mètre yu ne mu teg fa ñaari garde ñuy bàgg di tere ku dugg ci kër gi ak ku génn di tere ku dugg ci kër gi ak ku génn moo tax da ngay dégg soxna Jóob naan buñ ko laajee soxna Jóob neen dañoo xëy fajar julli fajar ba ne soxna awasaar ubbi bunt bi rek nit ñi bëgg a génn garde yi di leen bu leen génn ndax nee na bi mu sànni julli fajar day ubbi bunt bi ku bëgg a génn génn kuy doxante ji wala yooyu nee na ñu ubbi bunt bi ñu bëgg a génn garde leen bu kenn génn ñu ne ah ñu leen bu kenn génn ñu ñu dem wax ko maam fàtta ko daal mu ne mu ne mu ne wax leen ko seex mu wax ko sëñ bi nee na ñu seet seex gisuñu ko moo tax waa kër gi ñoo ci jaaxle lañ ne ko ndax garde yi gis bi ci bii ba léegi ñu ngi gis garde yi xamaguñ lu xew suñ ca fàtta ko nee na da ko ne seex dama wal ma sanday nee na mu dem wooye ko sama fàtti nee na ñu ñëwee ñu jàmmante yàgg ndax ay bokk lañ nee na borom daal daan ko soxna Fatou di bi dafay jóge nee bi dañ koy yóbbooti mu ne ko déedéet boroomam a ko woo nee bi dañ koy yóbbooti nee na garde ya tax garde yi gis moo tax maa ko dañ mu ne ko déedéet boroom ko woo nee na mu tàmbali bëgg a mu ne ko ah, boo defee noonu noonu ñuy def nee na mu daal nee mu daal di fa baatee yoon ko waaye suñ safaataaku nee na bi bi ko borom daaru mooti waxee ne ko demal nga wol ba sa ndey nee na foofu suñ borom doo ko jox am xel kër jigéen ñi teen ba nee dafa dem am na benn kii bu diis bu nekkoon foofu daal moom la jël tëje ko teen bi fexe ba tëj teen ba nga xam ne kenn du ca mën a dugg mboolem lu mën a loree rek fexe na ba def ca lam ca mën daal ndax nee na wóor na ko ne waa kër gi bis bu ñu yégee ne sëñ Tuubaa nekkatul àddina kenn du bëgg a des àddina kenn ci ñoom rek du bëgg a des te loolu moom noonu noonu ma ko waxee noonu la ndax soxna wa Jóob ba ci danaa ci dikk soxna wa Jóob ma ko ma la fekkoon nag moom wax na loolu waaw soxna wa Jóob nee na li suñu masaakanaan sa guumi leer yi ne sa rox moo tey ma dee ne ngayam nee ko gëm ndax neen lu ne nit def na ko te kenn faatuwut nee na ñii di sëpp jële ñii di yëcc ci kaw seng yi ñii di sànni seen takkaay lu ne nit def na ko te faatuwut keroog bis boobu waaw soxna Faati daal bés boobu ko borom daal waxee loolu ba mu dumaat ci kër ga wax ko waa kër gi waa kër gépp yu xoondoo waa kër gu mag bu ñu waxee waa dëkk wi dégg leen daal leen di aw ñu doon genn yox ñëpp xamandoo xibaar bi kenn newul sa morom noppit àllarba jooju moom njaareem àllarba jooju nee na genn yuuxu lañ ko yendoo yuuxoo rek ne ko kenn sa morom noppit àllarba jooju ñaar fukki fan ci weeru muharram xaama ba mu tësin ren am malaaj ay jàngat yu bëree bëri nag ndax sëñ Tuubaa daa waxoon ne xultu wa ay yaa mista rek moosi moosi fil xaa moosi fil nee samay tey yu ne day gàccal samay démb ba am si yéen sii nii bi yow mi waxadaa sama tey yu ne ak sama ëllëg dañuy gàccal sama démb ba bañ ko noppee gis nag ak léegi téeméeri at la léegi nag kenn ku nekk ci noxool loolu ay jàngat la laaj yoo xam ni dinañ ci dikk man noo ngi ci woo nag borom xam-xam yëpp nag ñu dëkk ci def ci ay jàngat injaasaat yi nga xam ne yoonu murid def na ko ci téeméeri at yi ak noonu ñi nga xam ne noo ñëw gënaaw sëñ bi teg duñ teg suñu bët ci la mu waxoon lépp teg nañ ci suñu bët la mu waxoon ne du fi jóg xaatimat munaajaati bil xat loolu mu ci wax lépp ne du fi jóg ñun teg nañ ci suñu bët ndax xam nañ ne lii ku fi jóg ku fi ku fi Sëñ Tuubaa jóg fi ko xam ne bis bu set danañ la tudd ay millions millions yoon ci àddina su dee yoonam yi bu doon ci fukk la ko bàyyi fi ne nii mi ngi ci ay ay millions kooka yàlla nañ ko yàlla fayal defal na nañu loo xam ne bala na ko doon xam malxiyaas bi lay naa la buñ ko amatoon buñ amatoon ku mel ne sëñ Tuubaa feeñutoon booba la xam musiba ñu sëñ Tuubaa fegal naka la toll waaye ndokk biñ ko amee waaw yi ñu dund ak jàmm jéeg lépp mënu ko fàggul te moom mos koo tal ci ay coono la ko jënde ak naqar ak tiis ngir noonu ñu am jàmm kon nag alhamdulilah ala jaari Seex Xaadim eh, naar bi daal war nañ ko dellaat xoromam affaire war nañ wala wala yëg ne naar bi indi xorom si noonu moo ko waxee moom ci boppam waaw yëg ne naar bi indi xorom si lu jekk jekk la.